asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 1er octobre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi mu mel ni ki nag fan koy jëkke mooy yëglikaay bii di sunu lamb sunu lamb moom tay Ama Baldé la ñu xëy seen ko fa mu fees fa bu baax a baax a baax ka ko tiim di wax nag mooy ka ko yor di ko mën a sa ci wàllum lamb muy Abdou Bakhoum Abdou Bakhoum nag ka mu xëy di dal ci koom ba mu saf mooy ki nga xam ne mu di tafaatin nee na ko yow tafaatin muus ngay jéem a jaay ak di mbong lu te yow jàppal ne sax doo ci lenn ñu ne ko déet waaye Abdou ne tafaatin xam nañ ko bu baax a baax open press sax mënu koo feesal mu mel ni kii daal kon tey Abdou Bakhoum tafaatin la xëy na réel ci kawam dal ko ba mu yëg ko waaye yemu ca de nee na kii di Gris Bordeaux bu Fass ak Lac de Guiers numéro 2 bu Waalo ak sax zéro franc maanaam bu leen joxul dara boobu combat moom wala yooyu combat dañu koy daal di accepter nangu defante ba keneen koo xam ne nii moom moom itam xëy na de tuur ba mu safa saf sap mooy garga mboose ma ca États-Unis moom nag tuur ci kawam mooy Siteu ak Sa Thiès nee na li leer ba leer day Siteu moom li mu fi bëgg a nekkee mooy di wër ay paa yoo xam ne daal jeexal nañu muy bëgg a daje ak ñoom nee na moom loolu la préféré ci làmbam waaye li leer ba leer daal xam na bu baax a baax ne moom sama avance xalaatu koo lekk tey suba waxi noppi na fi nekk kay di raasuwaatu ay paa rek moom Siteu daal la fi bëgg a nekkee Garga Mbossé moo xëy di ko wax waaye kii di Sa Thiès tamit ko fàttewu ko de nee na moom fi mu nekk nii Sa Thiès daa yaakaar ni yee dafa nekk ci kaw ñëpp ñëpp te dafa gu fi lan loo xam ne ni daal lees mën a wax la mu mel ni ki daal kon tey Garga Mbossé moom xëy na tàngal ba mu tàng jër jëri jër ñi nga xam ne nii moom seen i mbir tàngul seddul mooy waaye kii raam daan ba ca Pikine ñoom nag sunu làmb nee na li am ba des daal fukki combat la ñu am ci saison bi juróomi victoire ak juróomi défaite mu mel ni ki nag kon daal écrit raam daan moom boo bëggee dégg-dégg progressé doxu ko maanam daal jëmul ca kanam a kanam ndax fa ñu nekk jóguñu fa yëglikaay baa xëy tey ñëw wax ñu ko wan ñu kii nga xam ne nii nag moo di Jara 2 mu mel ni kii nag moom Jara 2 moom moom leer ba leer moom moom confirmé na waaye am na ci ñoo xam ne moom boo bëggee dégg-dégg ay déception lañ ci écrit ba bokk na ci kii nga xam ne nii moo di Boy Baldé moom yëglikaay bi ne nag déception bu mag a mag la am na yeneen xale yoo xam ne tamit gis nañ leen ñu wax ñëw ci ñoom ñoom am na loo xam ne daal jot nañ ko wane DMX ak ki nga xam ne mooy demi problème tampon 2 ki nga xam ne moo di njalabaan waaye am na ñoo xam ne moom fa ñu jaare moom a dégg moom neexul ndax ay saison balaas la ñu def mooy Thione 2 ki daal saison balaas li nga xam ne nii moom la ñu def mu mel ni ki daal kon Ramdaan moom boo bëggee dégg-dégg moom dox ga des na bu baax a baax a baax a baax ki nga xam ne ni moom fi mu nekk nii doxle na mooy Siteu ma nga xam ne moom la Garga Mbossé doon daal ci MMA ba moom mu ngi koy doxle bu baax a baax ndax nag ñaari combat ngi yoo xam ne daal mu ngi koy gagné moo tax yëgle yéenekaay bi ne sa tëdday ndax tegul pression ki nga xam ne moo di Bombardier mi nga xam ne tamit war naa jongante li nga xam ne moo di MMA waaye sa tëdd nag ba mu amee MMA boobu ba gagné ko daal yéenekaay bi ne làmb xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu waaye dañuy dem fii nga xam ne nii daal ba tey moom mooy ca record record moom la mu ñu xëy xamal daal nee na leer ba leer de Tyson moom mu ngay wax la nga xam ne ni day moom moo tax lamb ji doxul record a xëy ñëw di ñu wax lu mel ni kii noonu waaye ba tey ci record rek gis nañ fa li nga xam ne ni nag moo di CNG mu mel ni ki nag seen saison moom ci wàllum administratif moom commencé nañ ko tey jii ci premier octobre bi yëglikaay baa xëy tey ñëw di ñu ko wax waaye jamono jooju nag ñu mel ni waa Adrien Senghor moom dañoo nar a anticiper saison ba ndax ki nga xam ne ni day moo di góor production daa le six ji ñu jëm day làmb la bëgg a tëgg làmb ja nag mu ngi ca sargal ki nga xam ne sax moo di Boucar Ndour bu Leewtoo bu Lutte TV yëglikaay bi di record moo xëy ñëw di ñu ko wax waaye dañuy dellu ca sunu làmb làmb simple ja ki nga xam ne nii day wala boog fa nga xam ne nii day mooy sa Kaolack coow la moom jeexagul de ci wàllum a seen ak ñamu àndal mu mel ni ki nag kii di gouverneur gouverneur Kaolack moom dafa joxe woon wàllum daje boo xam ne daal waroon na am waaye daje ba daal nee nañ fa mujje moom neexul ci jaxasoo gu méttee métti fa la programme am la mu xam ne daal nee na moom li leer bale de boobu réunion sax ca kër ca kër góormóor da koo yëgul ak ay noppam déggu ko fenn fenn kon daal mu mel ni kon Kaolack fi mu nekk ni moom ndaw mu ngi fay wéy di des aw xambin ki nga xam ne ni moom loo ci mën a dégg am sa son ñëw nañ ci moom moo di gaskel ci wàllum lambi simple yi gaskel nag li leer ba leer yëglikaay bi ne na boo xoolee ren liñ jot a ramassé ci wàllum xaas ci saison bii génn toll na ci deux millions quatre cent soixante mille francs loolu mooy li nga xam ne moom la jot a am ci ab xaalis maanaam gagné na ñaari final per ñaari demi final loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw wax ñu ko ci ki nga xam ne nii moom moo di gaskel jàmme ba nga xam ne moo dëkk ca palmarin sunu lamb xëy ñëw wax nu loolu waaye am na koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom de muy muru anta bu Thiès ak ab joxañam yëglikaay bi ay felasam la def premier soir ba guy gi la deuxième ba ama neex la troisième soit ba rëg-rëg la kon may laaj internautes yi Modou Anta mi kuñ ko war a jox yéeg li kay bi di suñu làmb xëy def ay photom guy gi la def ama neex rëg-rëg bu caaro yi yàgg maar boo xamee rëg-rëg wala boog ki nga xam ne mu di Modou Anta ku mu war a bëreel ci ñii nga wax ma ko wala ma laajaat ko kon internet Leewtoo TV mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar nga àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di si ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la delloo ziar ah, di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci di ko ñaanal internet yi ñuy suivre ci Leewtoo TV yëpp à travers la monde ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm. amin Babacar Babacar tey nag si revue de l'arène bi dañuy ñëw si euh, sunu lamb ñëw si record ak si Leewtoo point net tey nag euh, sunu lamb dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Abdou Bakhoum Abdou Bakhoum soo ko déggee mooy manager Ama Baldé moom daal dafa xëy tey daal di dal si kaw ki nga xam ne moom mooy Tafatine nee na Tafatine dafa war a mën a ñëw nangu bëre ak euh, Ama Baldé moom moo gën muy laaj ay cachet yoo xam ni kenn di ko ko fay te moom sax tey si su bëree ak Ama Baldé Ama Baldé moo koy arrangé ndax moom mënu sax feesal open press donc nee na nag su fekkee nag day continuer di yéegeel enchères yi Ama Baldé dina seeti ki nga xam ni mooy Gris wala ki nga xam ni mooy. Euh, Lac de Guiers waaw Abdou baaxum daal tey kon dafa xëy rek fëgg comme ni ñu ko waxee dóor ci ba mu dal la def parce que tam ah euh, diggante ta Ama ak Tapha moom yaakaar naa ne lu yàgg yoon la boobu ba tey ñu ngi ciy wax daaw ba ñu ngi naan seen diggante taxaw naag du taxaw ak nangam sàng Abdou baaxum mag Sela Ménager moo yore Ama Baldé yaa ngi dégg euh, tey nag yaakaar naa mbër mi nga xam ne nee nga mënul feesal ab open press est-ce que tamit bëreek moom jar na ko yaakaaruma ko mais nag du terewul moom ni euh, tey loolu muy wax mën nga ko comprendre que ni kat mbërëm la yor yaa ngi dégg bëgg combat. bëggal ko combat xëy na moo tax mu gën tey def attaque boobu jëmale ci kaw tafaatin ñoom nag comme li may wax rek mbër yi tey tafaatin ak Ama Baldé ba ñu waree revanche sax pour man du tey seen ram heure bi da man pour man daa waroon nañ bëri seen combat fi mu nekk nii lu war am la parce que te yoonu làmb la parce que Ama dafa daan tafaatin te tafaatin yaakaar na jël boobu ko Ama daan bëri na loo xam ne dañ naan ci làmb ñuy jàpp ne Ama waru koon ko daan am na ñuy wax loolu mais man sax gisuma loolu ndax man mbër mu jël sa avance war na la mën a daan te Ama Baldé amul ku mu mën a daan ci ku mu mënul daan si làmb kon tey Tapha Tine tool taxaw na fi nga xam ne ni dafa war a bëre ji ak Ama Baldé loolu mooy yoon mais nag loolu lu mu nekk nekk yoon ñoom mbëri ñoom ñoo am seen encadrement ñoo xam la ñuy fayeku ku ci ne lañ la la arrangé lañ la ngay bëree yàgg sa staff bu la arrangé wul tamit doo bëri xëy na Tapha kon dañ koo fay ko arrangé wul xëy na moo tax parce que combat bi ci lu ma xam moom am na promoteur bu ci nekkoon ba sori na ci waaw ba sori woon na ci seen diggante ñoom ñaar fan yi ñu génn ñu ngi ñaan yàlla nag combat bi taxaw parce que amateuru lamb yi soxla nañ ko te ñoom ñaar ñëpp ni mu arrangé Tapha Tine loolu la arrangé Ama ndax dañu def année balance ñoom ñaar daaw te loolu defe naa ren war nañoo moytu mu dal leen waaw surtout nag si ñoo xam ne ay VIP la ay VIP la ñu Babacar keneen ki nga xam ne dalal nañ ko mooy Garga Mbossé Garga Mbossé mooy euh, frère euh, Zos mi ngi nag depuis États-Unis commencé daal di sànni ay xeer ki nga xam ne mooy Siteu ak ki nga xam ne mooy Sa nee na daal Siteu dafa bëgg lu yomb daal dafa bëgg daal di bëreeg màggit di leen daan nu naan Siteu champion la keneen ki nga xam tamit euh, jot na ay xeeru Garga Mbossé mooy Sa Thiès nee na Sa Thiès dafa war a xoolaat taxawaayam parce que dafa teg boppam foo xam ni eggu fa daal waaw garga moom mu nga ba États-Unis jëli xeeram tey ay misilam yónnee ko Siteu ak ki nga xam ne nii mooy Sa Thiès nee na Siteu ay mag lay wër ah waaw loolu moom moo ko wax moom la engage xam nga mbër mii ay mag lay wër wala wërul ay mag li am ba des daal mooy Siteu bëri na ak ay mbër yàlla may ko ci ndam garga bëri ak ay mbër yàlla may ko ci ndam ku ne nag am nga adversaire yoo war a bëreel ak yoo warul bëreel loo ci mën a dégg nag diggante Siteu ak garga mboose da di làmb ju tegu fi mu nekk nii fi mu nekk nii moom ñoom ñaar dañoo wër a bëri actuellement parce que lamb daf leen a boole fi mu nekk nii nii nii yaakaar na ku mu neex nag ci ñoom ñaar am nga droit ne. du jël diw xëy na yaa xam fa nga koy teg mais ñun bu ñu waxee ci cadre sport wax ci cadre làmb war nañu bëre mën a bëre muy lu neex a neex na tam euh, euh, Siteu am na lu mu def ci làmb Garga Mbossé am na lu mu def ci làmb ndax yaakaar naa Moussa Ndoye daaw freiné bi mu ko freiné ak alir bi Moussa Ndoye yaakaar naa kon kooku tey mën nañ ne mbër waada la si tey itam kazalika naka noonu donte dafa jóge ci guy sax ak defet boole ci année blanche waaye tamit dafa bokk si làmb kon yaakaar naa seen combat daal war na mën a neex Garga nag xam naa daa dem ba xam ne fii mu nekk nii wax jot na moo tax mu xëy tey sës waaw dóor waaw te ku sës ku bëgg a dee weq wala fa ko wax yaa ngi dégg beneen bi ci des mooy Sa moom nee na yaakaar na moom moo ne ci kaw ñëpp pour moom moo raw ñëpp wala daa def lu kenn deful loolu ba tey li ma la wax la rek daf leen di wan ne leen kon man maa ngi nii pare génne leen ñëw ñu bëri yaa ngi dégg loolu la parce que laajoon naa ko ci digganteem ak Sa Thiès mu ne Sa Thiès waxul wax ju kii comme ni mu waxee nii tey waxewu ni woon mais nag xam naa fi mu nekk nii xam na ne nag comme li ma la wax léegi rek. yaa fi si say taxafal luy jot jot na moo tax nag mu ne Sa dafa yaakaar ne moo ne ci kaw ñëpp waaye loo ci mën a dégg loolu lépp mbër da koy wax moromu mbëram ngir lan ngir provoquer ko ngir mën a nangu avance am bëri digganteem ak Sa tamit lu valable la lu war a mën a nekk la Garga Sa ndax Sa bu ñu fàtte ne année balance def na ko te mu ngi toog ci benn défaite te Garga mboose gis nañ vraiment actuellement performance yi muy def euh, at yi passé ba ci saison bi jeex gëj na am défaite boo xoolee. Euh, Babacar loolu am na solo bilan tey nag écurie bu ñu ñëw muy écurie Ramdan nee ñu daal euh, Ramdan puusul paasul dafa taxaw benn place ndax mi ngi ci cinq victoires cinq défaites moom la ñu am saison bi ñu génn. waaw yéegu ñu wàccuñu te ba tey sax sa euh, garga moom dinaa si ñëwaat ndax moog Sa dañoo bokk leen daan muy booy Niang Boy Niang leen daan ñoom ñaar ñëpp si benn ngemb kon làmb boole kon waaw kon làmb boole na leen écurie Ramdan nag écurie la bu nekk Pikine di écurie bu ndaw ay xale na fa ñoom Jara Dëgg ay Boy Balde ah cinq victoire cinq defet dañ naan liggéey ba moom taxu ko normal wala parce que bëre amu fa boo xoolee fukki di combat bariwul mbër yu bëree kon résultat ba demul dikkul ah loolu nag lim leen war a yóbbee mooy que ni ñu gën a liggéeyaat pour saison prochaine ñu gën seen bopp mi mbër ni jarade moom gis nañ ko mu ngi ñëwaat di progresser ndànk ndànk booy balde tamit commencé woon nay jóg mais saison bii passé nii gis nga dafa passé à côté loolu nag mooy ah làmb liñ leen di wax daal ak ña leen encadré ñëpp mooy que ni xëy na waat seen ay seenub liggéey pour que saison prochaine ñu gën a mën a lu ëpp li ñu wane. journal bi aussi def na benn taxaw seetlu maanaam li xam ne moom la bëgg euh, euh, taxawal ren est-ce que loolu dina mën a sotti wala boog si suy sotti lu yéex lay doon maanaam na na promoteur yi di déclarer intégralité euh, cachet mbër yi au niveau du CNG loolu nag Babacar dina xaw a jafe parce que mbër yi bëri nañ koy bañ parce que dañuy ragal suñu yóbboo seen intégralité cachet yëpp CNG suy dagg pourcentage yu cachet bi la ñuy dagg te kon amaana mbër bi kon du dese dara waaw maanaam daal li nga xam ne moom lañ fay mbër mi bu dee dañ ko fay exemple cinquante millions ñu déclaré cinquante millions biir CNG ah loolu xam naa du yomb moom parce que mbër yi comme li nga wax noonu rek des fois dañuy bañ ko laal seen kase yi lu baree bare moo tax xëy na duñ bëgg intégralité kase bi ñu déclaré ko au niveau du CNG soit dañ dañ fi dañ mbër 10 millions ñu dem na 7 millions lañ ko fay wala 5 millions loolu nag ah beneen mbir la boo xam ne nii beneen liggéey la waaw waaye li am li li ma xam daal mooy lu mu mën a doon lu ne rek moo xam ku ko mën a yor ak noo koy doxale rek nañ ko def defin bi nga xam ne suñ ko defee nit ku ne di nga ci mën a gis sa bopp parce que mbër yi moom lu war lu la waaye man a wax moom seen xaalis moom wax dëgg yàlla bëgguñu ku koy laal te nag dafa metti nag wax dëgg yàlla ndax nañ na ci combat ay weer di ko préparer ñëw bëre sonn ci lool ñu daggale yenn xaas yu baree bari yi moom waaw day day xaw a diis mais loolu lépp li koy mën a régler mooy ku ci nekk rek waxtaan wi jàll communication bi jóge ci ñi yore du CNC dem ci encadrement beeg mbër yi pour ku ci na xam sa waru pour que parce lu mu mën a doon des na ko organiser pour mu bañ a am anarchie quoi. Babacar est-ce ministère bi tamit jotul tey mu dugal loxoom si si fonctionnement di financer li ki nga xam ne mooy CNG CNG soo seetloo keroog bu ñu def seen assemblée générale d' information bi xaalis yu bëri yu ñuy fonctionner maanaam li ñuy li ñuy liggéeyee si xaalis la ndax même équipe nationale sax bu ñu dagg si mbër yi jël di ko euh, di def stage yu euh, équipe nationale boobu est-ce jii jaaduwul ministère di dugal di di di di subventionner li nga xam ne moom mooy CNG moo gën CNG lépp lu muy dundee rek mu jël di ko di ko jëlee si xaalis mbër yi muy dagg loolu pour man xamala moo ko indi parce que CNG comité la comité nag yaakaar na duñ ko nattal bi du am subvention yaakaar naa. ay sponsor comme defa Tyson Tyson nañ ko fi teg nee nañu moom mooy chargé de fonds maanaam wuti ay sponsor ñu a jàppale CNG. waaw loolu war na mën a nekk mais pour man li koy gën a mën a gaawal mooy tey ñu dem ba toll ci wàllum fédération ak lu mën a xew pour man suñu demoon ba yegg foofu xam nga yi tey yaakaar naa am na lu leen ministère de sport ameel ay subvention yaa ngi dégg loolu nag su amee tey ñu nekk fédération ah ki nga xam ne moom lañ sarse ci wàllum koom-koom mi war ko uti muy Tyson su keroogee xëy na dina gën a mën a yomb yaa ngi dégg pour que mu am ay sponsor yoo xam ne dinañ ñëw di leen jàppale intégralité wu saison bi ñoo xam dañuy signé benn weer wala at wala ñaari at pour que lan pour que CNG man di fonctionner ci xaas boo xam ne xaas propre l'argent lay doon mais bañ a nekk xaas mu daggee kii wala ci kële loolu tamit li ma la waxoon sànq rek lu mu mënta doon waxtaan moo koy indi. yaa ngi dégg waxtaan nag su amee ku ci ne fa nga mënewul te bu ñu buñ buñ la ko signalé nga xam ne fii tële nga fi danga koy nangu pour que mbir yi mën a avancé mais loo ci mën a dégg moom euh, waxtaan jot na pour que CNG comme ni nga ko waxee muy dem ci ay moyens quoi pour man loolu moo gën a wóor. Babacar euh, tey nag le premier octobre premier octobre mooy administrativement CNG ubbi na maanaam kii di mbër kii di promoteur kii di manager képp koo xam ne bëgg nga renouveler sa licence rek tey Babacar soo demee di nga fekk directeur administratif bi nga xam ne mooy ñàmme mu renouveler sa licence. ñu koy nuyu Ndiame Diop c'est le directeur administratif au niveau du CNG kon tey wax ja leer na man nañ saison bi ubbi na premier octobre parce que xam da ngay mbër di wut sa licence wala ngay promoteur a doon moom kon bu la neexee à partir de tey ci mardi ji moom bu la neexee nga dem CNG boo demee di nga fa fekk ñuy liggéey loola ñu teel la wutal sa kay ñu ngi leen di wax nag rek ñi nga xam ñooy mbëri surtout ñoom nañ ci teel a jublu parce que dem ba ci biir nga am combat di am problème licence wala nangam sangam yooyu nañ ko teel a moytu daal li nga wax sax nañu si teel a jóg moo tax euh, nu nu war see gaaw balaa le octobre parce que euh, Adrien Senghor moom day ubbi le octobre parce que CNG neewoon na le 15 le 15 euh, octobre lay ubbi mais ñoom dañoo anticiper si si saison bi moo tax le 6 octobre na am benn gala de lutte boo xam ne promoteur bi ñuy wax góorgóorlu production moom moo koy organiser foofu si Adrien Senghor. waaw góorgóorlu production moo ko organiser Adrien Senghor kon le octobre boobu ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax góorgóorlu production ñu koy nuyu di ko ziar di wax ne ko tamit. génn golo gàtt na mais loo ci laal borom yëg ko parce que lu tax mooy buñ ne dañ koy organiser di ci delloo euh, njukkal wala di ci sargal Boucar Ndour bu nekk Lutte TV yaakaar naa loolu delloo mbattu si ci ndaali la parce que euh, ñun bokk bokk nañ si ñu ko dalal Lutte TV man ak Lamine. ak ñañ fa nekkaloon mais yaakaar naa itam xale la bi nga xam ne bu am yar la bu nangoo liggéey te itam vraiment euh, ñun biñ dem nañ ba lit avec frappe bi nanguñu mais terewul moom mu ngi topp àll bi di jox nit ñi li nga xam ne mooy lutte simple bi ci nuñ ko bëggee kon yaakaar naa Boucar suñ ko delloo njukkal rek dañoo def li leen war rek yaa ngi dégg kon góorgóorlu production daal loolu ñu def jàpp nañ jàpp ne Babacar mi lañ ko defal ndax Boucar suñu rakk la te xale la bi nga xam ne yàlla xam na ne xale bu ama am yar la bu nangoo tamit liggéey la kon vraiment daal bisam boobu moom ah si kàttanu yàlla euh, bu dee dimanche la moom si incha allahu rabbi ñaan nañ yàlla teew fa àndoo ko ak moom ba mu jeex parce que nag xam nga comme li ma wax sànq rek Boucar daal yàlla na ko yàlla fal cat daal Amin Babacar si kàddu yooyu leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow di nuyu sama doom euh, Mouhamed Diouf di nuyu euh, Aïda Diouf di nuyu Dari mais tey nag Babacar dafa nekk jour bi si si man euh, muy Bombardier Zé ñu ngi koy moom laay tuddee Zé muy fête tey joyeux muy fête tey anniversaire naan ko joyeux anniversaire dundal dundal ba sa may di waawaan parce que depuis 2007 ba 2019 12 ans d'amitié yombul si entre journaliste doxewul euh, doxewul mbër ak journaliste frère la ma jàppee sœur la ma jàppee ma jàppee ko frère naa ko Bombardier daal enjoyal sa day waaw Bombardier le B52 ki nga xam ne dégg na roi des arènes ñaari yoon si euh, si si si euh, carrière am loolu moom moom la yàlla buur bi defaral yaa ngi dégg bokk na ci mbër yi nga xam ne nag ay exemple la si làmb ndax li tax ñu wax ko mooy yaram bii tey di le premier octobre yàlla na ko yàgg feet ay at at te muy ànd ak wér gi yaram xam nga ak mucc ak xéewal comme li nga wax nag ànd boo gis rek bu dëgëree te yàgg rek ku ne am na loo muñul sa moroom waaye ñaar suñu bëggee ànd bëgg bëgg bëgg dox ñaari paa ñetti paa su ma la muñulul wala nga am loo muñul rek du ñu dem fenn kon nag ak seen amitié boobu yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën ko saxal barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais tamit tey bu ñuy wax anniversaire premier octobre bi yaakaar naa l'international xam nañ ko muy suñu papa Youssou Ndour moom it tey la anniversaire àddina bi yëpp a koy màggal ñu koy ñaanal yàlla moom itam fan yu gudd wér gi yokku mook orchestre am ak bépp soppeem wala sax bépp doomu aadama parce tamit am na lu mu def ci réew mi parce yemul ci mention spéciale ci loolu nga xam ne nii moom lay moom lay def waaye tamit di ko ñaanal anniversaire bi ci ko bu baax a baax di nuyu internautes yëpp ñaanal ñëpp jàmm di wax gi ñu ne daal yàlla na yàlla yokk jàmm ji te wasaare ko ci àdduna bi encore une fois ji ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg loolu te wér di ko ñaanal Serigne Mbaye Sy Abdou Serigne Mbaye Sy Mansour Ba waaw ba ak Serigne Mbaye Sy Abdou yëpp mën nan ak maam Ablaye Thiaw Yoff di ko ñaanal xalifa yëpp ba ca jàngu ba xam nga Benjamin Ndiaye nuyu ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm Khady Rose du ma ko fàtte soxna Anna Cheikh Bintou Fall tuuti Yaay Sarr yàggamaar série wala boog doomu ndeyu kempes di nuyu ñëpp Aïda Diouf nuyu naa la Pape Telis ñoom fëlër ak ki nga xam ne mooy joor ak ñaari joor yi ñëpp nuyu nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm. l'international Youssou Ndoye maa ngi lay nuyu.